Parce que dem élection yi ci jàmm gañe ci jàmm parce que dañoo gañe ba pare bëgguñu ku ñu xajamal suñu victoire moo tax muy woo ñëpp ci calme ci tranquillité ci campagne boo xam dal ak jàmm dal boobu nag da nga koy bëgg sa morom bëgg ko mën loo koo bëgg yow rek toog di xaar ñu ñëw di la dëggaate duñu ko nangu xam nañu la victoire elle est déjà acquise motax tax ñi nga xamante bi dañoo jaxlé di def yenn déclaration yo xamné c'est saugrenu et c'est irresponsable de leur part duñu ko nangu nak le 23 janvier c'est dans une semaine jour pour jour sunu militants yépp Nous allons rabbi danañu génn seen kër doxantu ndank dem ba centre de vote yi dugg seen bureau de vote voter calmement génn dem toog seen kër calmement à 18 h ñoo dajé fi ci permanence bi pour jubiler notre victoire loolu ñun ci logique bobu lañu nek nekk ñu kenn ci confrontation ak xex wante nous duñ ko daw suñ ko dawul danañu préparer wu jël suñu disposition ci côté yépp je voudrais féliciter tous les responsables du département de Pikine mais également toute la jeunesse du département de Pikine ma ngi remercier toute la jeunesse de Mbao ñi nga xamné demb accompagner nañu accompagnement bu mucc ayib ba ñu def sunu caravane caravane bi jaar fi mbaaw te li fi xew bi caravane bi jaaree mbaaw ñëpp gis nañ ko moo tax maa ngi leen di jëfal bu baax di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi léegi nag am na ñaari déclaration yoo xam ne ba ñett bëgg naa ko def première déclaration mooy saa yu may démarrer sama activité Demain, démarrer qui lancer un appel pour la non-violence non-violence pendant non-violence le jour du scrutin le directeur de campagne Malik Sar Wakhna Motach, ci loolu moo li am solo ba am solo li am solo ba am solo ce que nous voulons faire moi, terminer sous campagne nos campagnes ak salam. à bi jot nañu ni le budget bi maire bi dañ ko rejeté té on nak bettuñu c'est parce qu'il est dans du sabotage il a brûlé les étapes de consultation participative liwaron préside présider tout le processus bi nga processus d'élaboration du budget li budget laaj ci la participation def ko jël tek ko feulé teju budget de xamné milliard six millions autorité administrative bi nga moom mooy valider moom mooy vérifier la régularité et la conformité nee budget bi baaxul parce que respecté wul li nga xamné mom moy li processus bi wax lolou nak ci ay feemam la bok parce que xamna ni du gagner wat donc dafa bëgg tardel équipe bi wara a ñëw mu mu def budget bo xamné nu ko neex la ko pour que ñu rejeter ko

déclaration bi ñu def ay sëram ay frèram yi mu bokkal papa ñëw ne Abdou Karim ñun waa Petit Mbao ñun yow lañu ñu àndal tey jii ki taxaw nii sama wet papam ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay di Ablaye euh, di Aliou Aliou moom moo jël décision ne ma Abdou Karim li ma gis man dama jàpp ni tey waruma nek wetu kenn parce que politique ak mbok bu nek day dox yonam fula neex ngay tànn ki ngay andal Merci Aliou pour avoir choisi de venir encore à nouveau à mes côtés malgré la pression familiale pour ñew and ak ñun and ak ay jeunes yu nek Petit mbaw pour que inshallah la victoire soit belle.